waaw recommandation bi ci jitu dal moy nangu déjà projet bi njëriñam parce que état bu xalaatee né euh warna tek ay euh, ay agropole luma ma juróomi agropole ci réew mi dajale région yi ba région bu ci nek lu amul ñu seet nan lañu mëna def ba mën ko jëmmal dolel ko yobul ko ci yeneen région lolu xalaat bu rafet la en tout cas ñun wax nañu né té ñom tam tëjuñu euh, waxtaan bi région yi ñu ciblé déjà amna na lu fa am nous lo xamantene d'accord pour nous. ci mais dañu wax rek ne bu bëgg nañu au sens large muy cham gi mbey mi euh, foresterie ak li nga xamantene moy moy moy mooy Nous gi dafa nek lo xamantene encore li nga nous moy tax produit yoyu mëna and ak loolu la wax transformation te loolu mo waral mu organiser nit ñi waaye fexe ba li nga xamante ne jëmmal nañ ko liggéey nañ ko ñu def ko ko présenté ko présentation boo xam te ni mën nañ ko jaay fépp ci bitim réew dama wax ne wax ciblé nañu tantôt lu mel ni darkase ji ci boori Ziguinchor ak ci suuf boole nañ ci màng ba ndax la muy yàqoo di di di kii mais jàpp nañ ne xëy na buñ ko dooleelee présenté ko ak yu mel noonu ñu jël comme exemple defe naa ne Sénégal yëpp ci gis seen bopp te loolu dina gën a mën a yokk nag liggéeyu ndaw ñi la ci des nag mooy jéem a xool ci biir loolu technicité bu ci nekk dañ ciy def ay formation yu gaaw yoo xamante ni nit ñi dinañ xam fan lañ jëm ak fan la ñu teg seen tànk en tout cas daal gis nañ ne projet bi am na ay réew yoo xamante ne commencé nañ cee dugal seen xaalis euh, am na ñu wax 500 millions. amna ñoo xamantene ci ay ci euh, lu mot 5 euh, millions d'euros amna ñoo xamantene wax nañ ay 20 millions d'euros etc mais yoyep da fay prouver né l'intérêt du projet surtout sur l'employabilité des jeunes ce n'est plus à démontrer donc nak kon li ci dess rek moy fexé ba bañu yob baña bay kenn muy xalé yi muy ndaw yi muy jigen ñi ndax kenn ku ci nekk amna na loo dem ci kanam lool nak dañ ko wara xol dans le cadre du projet seet nan lañ koy def ba jëmmal leen dooleel leen ba quand même kenn ku nekk mën a gis sa bopp ca fa nga nekk ak la ngay def loolu mooy tax réew mi jëm kanam loolu daal mooy tax chambre de commerce woote. merci